voilà comme ni ñu ko waxee woon sànq tey Fatou si ngay waxtaanee lépp li nga xamante ne mën naa yàqu koor. d' accord loolu la ñuy waxtaanee effectivement xadi oustaz tey ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ni moom la ñu faral di dégg depuis bu ñu nekkee xale que ni boo ko defee da ngay yàq sa koor des fois aussi ñuy am ci yenn yi nga xam ne ay dut la lii day yàq koor bu oustaz bi waxee tey kii day yàq koor keneen. rek ay polémique yu bëri yoo xamante ni ah, jot na askan wi surtout maag ndaw yi nga xamante ni également ñoom ñooy ëllëgu réew mu ñu daal di koy xam avant ñuy développé dafa am benn bu may njëkkee mooy bi Europe di tuddee xool ak gis lan lay lan lay firi waaw euh, jërëjëf sujet bi ngeen indi am na importance ndax mhm. euh, lu toll na jaamu yàlla boo xam ne benn ponk la ci biir diine mhm. parce que diine bi bu fekkonte ne benn bâtiment la dañuy naan juróomi ponk ñoo ko téye juróom yooyu nekkuma fi di leen lim waaye bokk na ci li ñu tax a jóg tey muy koor mhm. kon li nga xam ne dafay màbb pilier boobu jar na waxtaan waxtaane mhm. euh, mooy lan mooy yàq koor ndax est-ce que xool dina yàq koor walla dégg dafa am loo xam ne dafay yàq koor ak loo xam ne dafay wàññi koor waaw mhm. euh, xool du yàq koor waaye mën na ko wàññi ba mu mel ne benn nag wu yooyu woo xam ne bu ñu la ko rendilee da ngay feeñu rek waaye doo leen ko yàpp mm-hmm. xam nga loolu amul solo mm-hmm. dégg itam mën na wàññi koor wàññi ko ba mu mel ba mu mel noonu mm-hmm. waaye xool ak dégg du tax ñu ne la baamtul koor gi ndax yàqu na nga xool bi nga xool wala baamtul koor gi yàqu na ndax dégg bi nga dégg loolu loolu amul Oustaz est-ce que dégg bi dina wàññikoor ci kii dégg loo xam ne bëggu ko woon dégg cest à maa ngi toog ak xaddi Xadi wax na loo xamante ni nekkul sama intention pour ma déglu ko mais moom moo ko wax ma dégg ko est-ce que loolu aussi également ci luy wàññikoor la bokk. wolof nag langue wu riche la ci côté boobu ndax dafa am dégg ak déglu. Mhm. d'accord bu fekkonte ne boo dégloo rek def nga njombe kon doon na metti parce que bu boobaa booy dox ci mbedd mi il faut nga taf sa nopp. Mhm. mën nga dégg te fekk déglu wuloo la ko jàppee. waaye nag li xew ci rawatina jigéen ñi ci pencum jigéen ñi moom dañuy déglu ba dañuy dañuy déglu ba weesu déglu sax di di di kii maanaam. bu wax amee déglu am ci loo xam ne waxuwul dégluwul ñaar am ñaar def nañu erreur ki ko wax. mu ngi ci erreur waaye ki ko déglu itam. mu ngi ci erreur mu ngi ci erreur. d'accord loolu jëw daf ciy dugg. ràmbaaj daf ciy dugg. dinañ ñëw ci loolu également ñu desandi ci li nga xamante ni moom mooy xool bi itam comme li ma wax rek ci déglu bi bët itam nit daf ko moomul des fois nga génn ci mbedd mi gis yenn solin yi gis yenn comportement yi est-ce que également foofu aussi dafay jouer ci le fait que euh, sa corps dina mën a wàññi. voilà très bien maanaam euh, nit ki li ñu bëggoon ci moom mooy bu wooree na léppam woor. Hmm. waaye bu fekkente ne yii dafa woor yii woorul bu boobaa importance bi taxoon koor jóg du fa du du am. maanaam nit ki bu fekkente ne dafa woor lekkul naanul. Mm-hmm. woor boobu mu woor war na tax ba loxoom du jël lu mu moomul làmmiñam du tudd lu mu lu mu lu ko wóorul noppam du déglu itam loo xam ne jaaduwul xolam sax du du xalaat loo xam ne euh, teguwul. la bëgg ci aji woor ji. waaye nag. du bu fekkente ne nit ki dafa def yi ñu mujj wax noonu muy euh, euh, déglu bi. wala mm-hmm. wala xool bi bu boobaa bi ñu wax ni kooram yàqu na ba daf koy war a fay déedéet. Mm-hmm. d'accord mais dafay wàññeeku. waaye dafay wàññeeku trop mën na dem ba daanaka yax bu muy seeñu rek moo koy def. d'accord beneen mbir itam boo xamante ne dafa am polémique bu baree bari muy wàllum parfum ak cuuraay des fois nit cuuraay ñu ne la waroo cuuraay parce que weeru koor la nit parfum wu ñu ne la b wooree waroo parfum Mhm. loolu aussi bëgg naa ñu am ci lu leer. voilà pour kañ la loolu di àgg ci yàq koor benn principe la ñuy dégager. ci principe boobu rek la ñu xamee ne ndax euh, dina ko yàq wala déet. léeg nag ñu war a dimbalikoo ci ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu wàllu yooyu. Mhm. mën na nekk docteur mën na beneen nekk beneen façon expert selon euh, cas bi. waaye li ñuy wax daal mooy bépp matière boo xam ne matière la bu composé wu di mën a roogaat fu mu mënti jaaree ba àgg ci sa mbàq sa koor yàqu na. Mhm. loolu mën na am Euh, matière boo dugal ci def ci sa bët mën na am nga def ko ci sa nopp mën na am euh, ñu ñu piqûre la ko foo xam ne dina rogaat ba àgg foofu mm-hmm. waaye am na yenn piqûre yoo xam ne bu fekkente ne docteur bi nee na du rogaat ba àgg ci mbaax mi dara nekku ci waaye bu dee lu génn moom waxuñu ko mu mel ne wàccu mm-hmm. dara nekku ci bu fekkente ne ci wàccu rek la yem mm-hmm. delloo si wala ko ci biir mu mel ni maye deret yooyu xam ne jotewul ak koor comme li la tax a jóg noonu muy ndax est-ce que parfum Euh, boo ko defee ci sa yaram bu fekkente ne da nga yem ci def parfum bi nii rek ci sa yaram ci sa yére du ñu mën a wax ne da yàqu koor. loolu loolu du yàqu koor. Euh, loolu du yàq koor. d' accord beneen nit nit boo xamante ni tam ci ñun la nekk mais moomuñu ko muy maanaam xel muy xalaat est ce que tamit xalaat di dugg ci yenn xalaat yu profond yi est ce que également mën na mën na mën na yàq sa koor. mën na ko wàññi. ba mu àgg ci benn niveau boo xam ne bu wàññeeku loolu la daal maanaam bu fekkente ne ci xalaat ba rek la yem ndax bu fekkente ne danga nga woor nekk foofu di xalaat lu bon nan laay def ba rey kii nan laay def ba jël alalu kii nañu seet ni ñu koy eh, nga nekk ci xalaat yoo xam ne daal yu dëppawul ak eh, diine ji ak orientation diine bu boobaa comme la la daloon ci xool ba ak la la daloon ci dégg bu mën na la dal ci xalaat bi moo tax eh, li tax ba question bi am importance boo demee ci Ghazali benn borom xam-xam bu mag la ci lislaam yéen ko xamul rek waaye ñu bari xam nañ ko <laughs> mais heureusement que boo tàppee boo tàppee sa sa waaw Pape Ndiaye nee na sa imaam la imaam bu mag ci lislaam boo tàppee woon kii rek imaam Ghazali di nga gis euh, définition mu mu indi lu dafa dafa wax ay niveau yoo xam ne koor koor dafa am ay niveau daal dafa am woor boo xam ne sawmul am la mm-hmm. woor boo xam depuis fajar bi léegi daal lekkuma naanuma nangam nangam. kooku moom ñëpp koy def. barem boobu ñëpp a koy am. 5 mhm. pour cent boobu ñëpp koy am. léegi nag lay tegu ca loolu léegi nag mu ngi dépendre ci nit ko ak niveau bi mu wooree nee na nit dina woor ba nga xam ne xalaatam sax day woor. Mhm. boobu nag dafa jafe. Mhm. parce que li nga wax nii ngay xalaat. parce que boo nee eh, xaaral moom moytu duma xalaat sax bu boobaa nag ci ngay xalaat. <laughs> waaw ci <laughs> boo nee du ma xalaat rek xamal ni commencé nga xalaat. waaye nag nit ki mën na éduquer boppam ba nga xam ne daal na occuper boppam rawatina ci koor gi bokk na occuper boppam ci loo xam ne euh, contraire loolu lay doon moo tax tafsiru quran yu bari ak conférence yu bari yi ak euh, nit ki di def kéemtalaayu kàttanam ba nga xam ne daal du déraper même ci bu fekkente ni ci wàllu xalaat la. d'accord beneen bi bu gën a fréquent moo xamante ni ñu ngi koy faral di remarqué da ngay gis nit ko wor toute la journée nekk ci benn turu benn nit wax nga ko sànq moom muy maanaam jëw buy wax sax mën na commencé ni jëwuma ko sax damaa woor te donte li ngay wax bu taxawoon yow doo ko wax ci kanamam mais nangu nga ko tuddee jëw parce que yaa ngi ne da nga woor mais yaa ngi wax ci deram loo xamante ni bu toogoon doo ko wax jëw également yan yan effet la mën a def ci ci ci nga xamante ni ci nit ku woor la xëy journée di di wax ci nit ci nit lan lay wax na ma yàlla baal. na ma yàlla baal waaye nanga mag na wala jëwuma ko sax waaye ndax damaa woor waaye nanga mag na damaa sax waaye lu mu cee teg toujours ah, bu teewoon sax sañ naa ko wax ci pour rek mu pour rek mu mën a am mu mën a wax li bëgg a wax c'est ça mën a wax li mu wax su fekk li muy wax baaxul léegi nag jëw boobu mm-hmm. dañu dellu ci école yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu seet lu mu ci wax par rapport ak koor yonente bi dafa ne képp koo xam ne bàyyiwuloo wax ju waxuwul ak jëf ju jëfuwul. Mhm. bu boobaa yàlla amul soxla ci nga bàyyi sa lekk ak sa naan. d'accord voilà yonent bi principe boobu la dégagé léegi nag mu mu ajoo ay détails mooy détails yooyu ma la wax. Mhm. yooyu xëy na doo ko def ba ñu ne la ah yow kat talaata bi moom li nga ci jëw moom. Mhm. il faut bu ko gi jeexee nga fayaat ko. li ñu la ko wax. waaye day fekk la nga ca naroon am. doo euh, daanaka doo ko doo ko ci am day mel ni benn mbuus boo xam ne. Euh, da nga ciy def ndox mais dafa bënn boo àggee kër ga moom daanaka ay pepp pepp ndox rek ngay fekk foofu kon koor mën na di wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku ba la ca mënul ñàkk rek moo ca des mooy aspect ñàkk lekk ak ñàkk naan bi tuyaa ba boobu rek moo cee des te waroon na ko mën a ëpp ci bu fekkonte ne nit ki na yeneen cëram yi ak euh, xolam. d'accord waaw oustaz ci laa jàngee ni diine amul rus. waaw dama dafa am loo xam nit ñi dañ ciy werante ñaari mbir. Mhm. benn bi mooy est woor ba pare fóon sa jabar dagan woor ba pare di jaxasoog sa jabar naka la ko lislaam gisee. voilà ñaar yooyu benn bu ci nekk bokkul ak ak ak moroomam xam nga sa jabar bu fekkente ne fonk la moom terewuñu la ko. terewuñu la ko. Mhm. mais nag bu fekkente ne ci koor la. il faut nga xam sa bopp parce que am na noo xam ne bu fekkente ne moo ciy juddoo rek koor yàqu na te boobaa xam nga loolu ban daan moo la ciy fekk mooy dangay woor ñaari weer yoo xam ne day toftaloo mhm. te boo juuman ba lekk ci benn fan da ngay ba 60 jours yi mat euh, loolu lañ lay daanee te du sax sax nga fay bés boobu nga xam ne kii nga ko loolu mooy lan mooy bu fekkante ne action boobu dem na ba euh, ndox mën cee génn ak ndox mi lu mu mënti tudd bu boobaa koor ga yàqu na wala mën na nekk ne koor ya yàqu na ñaari koor yi mm-hmm. léegi bu fekkente ne nag àggul foofu nit ki xam ne maîtriser na boppam bu àggul foofu bu ko defee duñu ko wax ne li ngay def yàq na sa koor waaye li ñu gën a loon xëy na moom bu mënoon bàyyi ba bàyyi bàyyi ba euh, guddi ba naan ndox mu door def loolu mooy gën euh, xisa bu mel noonu itam ñëw na ci alquran ndax euh, yàlla dafa wàccee benn aaya ne eh, yonante bi waxal saxaaba yi ne ñoom tirise yi ñu doon tirise yëpp man maa ngi ci doon teg sama bët ci waxin daal mu ne xam nga bu koor bi muy door wàcc ñoom xamuñu woon ndax guddi la ñuy tere loolu wala bëccëg am ñoo xam ne dañ koy def ci guddi gi bu pare génn ne cel waaw sama koor baax na li léegi nag yàlla wàcc alxuraan ne bu fekkente ne guddi la dara nekku ci xam naa nag ñu doon war seen bopp di def loolu di laaxatu xam naa leen ci seen biir. également ban ban si wàllum sëy moomu ban digg heure bi ban heure ba ban heure la nga war a sekk ak sa sa sa sa jabar ba ban heure nga war a. voilà waa voilà parce que jigéen ñu ci bay seen problème moom mooy. Mm. Euh, dañuy jàpp que ni rek boo paree mën ngaa tëdd ba nga yeewu. pour nga mën a sangu set. Euh, déedéet euh, entre parenthèse balaa may dugg ci tontu bi mooy ne mm-hmm. sangu set euh, jotewul ak koor boo xëyoon itam nga war a sangu set te fekk yaa ngi woor yàqul koor gi. mooy maanaam sangu set bu ko fi koor fekkee du dara. Mm-hmm. waaye ku contraire bi moo moo moo yàq koor mooy koor sangu set fekk ko fi. war a sangu set bu ko fekkee rek da yàq koor bi mais koor bu fekkee bu fekkee ña war a sangu set dara nekku ci. léegi nag ban heure ba ban heure mooy heure bi nga mooy heure bi nga xam ni war nga cee mën a lekk ak bi nga xam ne il faut nga arrêté lekk mooy ban heure mooy bi fajar xare bi fajar xare actuellement fii ba koor gi jeex jàppal ne bu cinq heures 20 jotee mhm. rek arrêté lekk 5 heures fii ba koor gi di jeex. Mhm. voilà léegi nag ndogule day varier day varier di dem mu ngi mu ngi dem. Mhm. actuellement mu ngi toll ci 38. Euh, 19 heures 38. mu euh, bu subaa mu dem trent trent 39 boobu dina dina am 3 jours euh, day dem noonu une ci lay ci ci la koor gi di jeex daal. maanaam bés bu nekk rek il faut ngay suivre di mën a xam ban heure laa war a ndogu ak ban heure laa wara a euh, xëdd. nga bañ a basé wu lool lool ci ni Sénégal di doxalee ni ci nodd yi. Mhm. parce que nodd yi yenn saa yi day bàyyi ba mu passé ba mu yàgg juróom-ñaari minutes wala lu ko ëpp. Mhm. muy door mu muy muy muy door a nodd fekk. fa nga waroon arrêté lekk weesu na bu yàgg. Mm-hmm. léeg-léeg sax ñu ne ah non boobu jàkkee par seen yi. xaaral ma xaar beneen. <laughs> xaaral ma xaar beneen man bii laay jullee bii laay voilà tem ñu wax loolu mm-hmm. oustaz dafa xawul leer samay samay samay nopp. Mm-hmm. ci euh, problème bu sangu set bi. parce que comprendre ma dafa am ñuy sekk ak seen jëkkër yi ba ba bu ñu paree. dañuy tëdd bu continuer moom ba suba bu ñu xëyee pour sangu set mën a continuer woor est-ce que diine loolu la wax wala da ngaa a pare sangu set. a li gën. comme que war a sangu am na li gën mooy bu war a sangu amee rek noo gën a gaawee rek nga sangu euh, mu jeex waaye nag bu fekkente ne dara tax na wala sax yow danga nga tëdd rek bàyyi ba ñu nodd fajar nga door a jóg dem sangu ji dañuy wax ne ah yow tardé nga ba noor dana ñu ngi nii noor danañu fajar te war nga sangu sa koor baaxul déedéet. koor ga day baax. maanaam parce que koor gi daf fi fekk sangu war a sangu bi moo tax. d'accord moo tax dara nekku ci même boo bàyyoon ba tisbaar. Hmm. door a sangu am na erreur bi nga def mooy julliwuloo fajar kon. loolu mooy problème bi mais du problème mu koor bi daal. d'accord ku ba pare du julli. est-ce que kooku kooram valable na. ku ku wóor ba pare te doo julli. doo julli. voilà question bu bu bu concerné ay sénégalais yu bare la. Mm-hmm. parce que am na ñoo xam ne sax dañuy naan ren eh, moom jàmbaar la man war naa 15 jours ren <laughs> man daal eh, daaw set rek laa war mais ren góorgóorlu na yi ci def daal yàlla dina ma ko baal yàlla du weccanteeg nit waaye naan sama ñaar dërëm na nga te fekk logique boobu yow yaa ko dégagé waaye am na beneen logique bu fi nekk boo xam ne mooy réalité bi mm-hmm. euh, maanaam li yàlla digle ak li mu tere. nit ki waru ci am choix ne bii laa ciy def ma bàyyi bëri. Mhm, loolu ci logique sax warul war warul warul kii waaye nag sénégalais bi daf koy def am na sénégalais yoo xam ne boo leen ne woon yàlla tere na jëw mu ne ah, waaye nit matul <laughs> loolu nit matul moom kay léeg-léeg ñu mos ci tuuti rek ci jëw nga ne ko yàlla tere na yàpp mbaam xuux nga ne astafurlah man kay yàpp mbaam xuux moom man kay du ma ci lekk mu waaw ñaar yooyu yëpp la yàlla te bi mu teree bële. même ci tere décret bi tere bee moo tere bële moo tere bële moo tere bële. li digle julli dañuy xool li leen arrangé voilà exactement li digle li digle woor. moo digle julli ñaar yëpp ñaari ponk lañu yoo xam ne même même même euh, importance bi lañu am ci diine kon ngay woor ba pare doo julli ndax sa koor baax na. sa koor baax na ndax boo tàmbaliwaatoon julli duñ la wax ne duñ la wax ne feel. koor woor yi nga xam ne woorloo ko woon jàpp nga daawul woon julli fekk fekk pas-pas ngi fi daal gëm-gëm xam nga ñu bari duñ julli di waaye nekkul ne dañ ko gëmul c'est ça surtout xale yi jigéen dana leen gis duñ julli mu ko ñu ne ah waaye lu tax doo julli naa ah, jàggante rek waaye daal wallaay man dinaa waaye war na tàmbali temps yi sax xam nga kooku weddiwul ne julli daf ko war a def kooku bu julliwul tey woor koor ga duñu wax ne wérul waaye nag def na lu grave grave loo xam ne bu ko réglé wul yeneen ni dootu du du mën a du mën a am njëriñ parce que boo ñëwee bés penc li ñu lay njëkk a xool mooy julli bu baaxee ñu doo xool yeneen yi. muy mel ne rek oto boo xam ne bu ñëwee dañ lay njëkk laaj permis mm-hmm. boo amulee permis rek. wax du wax dootul euh, sore bi mhm. li nga tax ba amuloo permis di dawal moom boobu la ñuy xool mhm. julli noonu la mel daal d'accord léegi julli gi ba tey man dama ciy des xadi dafa am ñoo xamante ni également oustaz bu ñu xëyee ñoom bu ñu xiifee mënuñu def benn activité xam nga julli activité physique la dañuy wax sëgg ak sigi bi dañuy miir rek yooyu surtout am na ñoo xam ne genre séeréer yi ñoom coro bu ñu xiifee mhm. c'est-à-dire bu ñu taxawee seen bëti mën nay fulu wala affaire yooyu na parce que lekk moom du coup dañuy dajale euh, waxtu yi ba nga xam ne dog nañ ba seen xel dal ñuy soog tamit julli Euh, peut-être euh, déficit de motiv motivation la. d'accord waaye boo xamoon julli ga importance bi mu am bu boobaa di xiif bi force boobu mooy ëpp xiif bi. exemple bi mooy bu fekkonte ne dañu ne par exemple ah stade de l'amitié de benn benn saoudien ñëw na fi boo xam ne. Mhm. moom daal am na ay conteneur xaalis dollar ak euro yoo xam ne indi na ko. Mhm. léegi daf ko bëgg a jox nit ñi ku ñëw daal boo raaye boo mbokkee boo ñëwee dinañ la ci jox bu mhm. boobaa. woor naa ak woor ma ñoo ci yem da ngay dal di am cawarte di gaaw pour mën cee am mhm. te bële li la ci yàlla dik mu ëpp loolu mhm. yenn saa yi motivation motivation yi lañ dul wax nit ñi exactement boo jullee naka la xam nga boo bëggee seetaan yi ñuy wax ay ñoom jinne may mun a ak ban jinne wala boobu jinne boobu rek moo am <laughs> Sénégal jinne <laughs> xaw ma lan ak yooyu nee bu boo ñëwee nangam ak yooyu yooyu boo ci bëggee mucc bokk la ci li la ciy muccal mooy nga eh, def yu mel noonu di julli euh, julli boobu nekkul ne yooyu rek ko tax a jóg mais daf ci amaale. Mm-hmm. d'accord mm-hmm. Pape waaw man li ma bëggoon laaj euh, peut-être euh, xaw ma ndax ci cadre bi la la ren mooy lu jëm ci wàllu muuru koor. Mm-hmm. Euh, parce que day am ñu bëri loo xamante ne dañuy laaj ni bu fekkente ne dañ ko war a génnee xaalis ci ñaata lay toll ak ak lañ ko war a génnee ak yu mel noonu. voilà murum koor itam lu am parce que dañuy ne nit wooree bu wooree ba koor gi jeex koor gi dañ koy ajandi. dañ koy dencagum. di xaar mu génnee murum koor bu génnee murum koor nag ci la koor gi di yéeg ñu nangu ko. d'accord bu ko génneewul mooy musiba ak balaa yi. ko ñoo xam ne ñenn ñi mooy yoo xam ne euh, nit ki waroon na ko mën a génne génnewu ko. Mhm. mu yàgg fa nekk ay musiba wàccaat ci askan wi mhm. mu dal fee lee dal fële dal ci géej gi lee dal fee ku mel noonu. Mhm. kon murum koor lu ñu war a génnee la murum koor dafa dañ ko war a génnee ba ki nga xam ne mu ngi juddu ci dernière minute koor gi sax. dañ ko war a génneel mburum koor kon daw kooku ki nga xam ne amal tur amagul tur sa dañ ko ko war a dañ ko ko war a génneel mhm. voilà ki nga xam ne itam génn na àdduna fekk génnee murum koor war na ci waaye jotuñu ko woon génneel mu génn àdduna waaye fekk balaa muy génn àdduna fekk génnee murum koor war na gaañu na waaye dañ koy génneel murum koor kon murum koor noonu la noonu la amee solo ñaata la euh, bu fekkente ne ci ceeb maanaam ci loo xam ne espèce comme ceeb yooyu la mhm. da koy def euh, un kilo huit cent boo ko defee 2 moom moo gën a wóor daal. deux kilos ci ci bopp bu nekk. bopp bu nekk bopp yëpp ngay génnee nag amul na kii wóoroon na kële wóorul woon amul na kii xale la même kii door a juddu tey sax. moom kooku ci la est-ce que ceeb lay jox koo xam ne par ma génne muurum koor jox ko xat yi loolu mën na ci génnewaat muurum koor boppam. Euh, moomeel moomeel bu bu amee. frontière dootul amati. xaw ma ndax comprendre nga ni ma bëgg a. si <laughs> <laughs> bu moomeel amee rek. moom moomeel boobu day nekk moomeel dootul wuuteeti ak yeneen yu moom. d'accord waaw man tey jii dañuy gis en général ñu naan xale jigéen ñi ak mèche yi ñuy ci biir koor geeg lépp est-ce tey jii tam euh, comme tey jii ay doomu jullit lañ daal di bàyyi mèche yëpp pour mën a muur wala ñu mën a musóoru ba ba mu paase. Euh, bu fekkente ne nit ki dafa am lu ñu ko tere loolu terewuñu ko ko ci benn période mhm. bàyyi yeneen période yi yeneen période euh, yëpp la léegi nag mince ak yu mel noonu maanaam euh, gisin yoo xam ne tegul fu mu war a tegu mhm. xam naa soo tuul saar dafay zoomé mince yi de ah, comme bi comme bi <laughs> ak ak yooyu maanaam yooyu nekkul benn période boo xam ne dañ koy tere wala bàyyi beneen mais période yi période yi dañu ëppante importance comme ni lieu yi béréb yi. Mhm. ëppante importance. moo tax léeg-léeg nga dégg Sénégal ah weer bi de il faut ma sellal moo tax kii kii rek nga ne ma sol yi xaaral ma sol yële mhm. euh, koor gi mhm. ah ku ko am ku ko am jël waaye ku ko mënoon am ci yenn période yi itam jël. mu nekk lu sax mu nekk lu sax mooy mooy gën. waaye fekkente ne saxul nga gis ne euh, période koor gi mën naa ci wàññi lii def ci lii def ci lii def ca loolu ndax parce que période weer wi. dafa nekk période boo xam ne période promotion la période occasion war a mën a mën a mën a am lu bari la. Mm-hmm. parce que guddi goo xam ne dafay multiplier par quatre vingt quatre ans. nga ko yàlla nangu ko mu ngi ci biir weer woowu. Mm-hmm. Euh, weer woo xam ne mooy anniversaire alquran. weer woo xam ne guddi gu jot yàlla dina ci baal ñoo xam ne waroon nañ dem safara ay junniy junniy nit ñu war a dem àjjana. Mm-hmm. weer wu mel noonu. Euh, boo ci duggee ak euh, logique gu bu dëppoog weer moo gën. Mm-hmm. d' accord mm. alors ma dernière question euh, Oustaz. Mm. Mm. dama bëggoon nga nga wax ñu nga xamante ni jeunes yi ñu ngi koy faral def moom mooy lido ba xam araam na wala araamul. wala ku woor dina ko def lido. xam nga lido. Lido mooy comme. Lido bi ñuy def nii def nii. Ah, xam nga genre carte la rek. ah oui genre waaw mais genre carte la mais du doon loo xam ne da ngay di dégg ñu naan baaxul ak. wala ko wóor du Lido genre yooyu ay carte comme ay blotte ak yooyu noonu est-ce que baax na ci wér koor bi. comme que cité nga turu jeune li may conseillé jeunes yi mooy ñu exploiter seen temps ci loo xam ne daf leen di amal njëriñ. Mhm, loolu principe la boo xam ne citoyen bu nekk war na koo jàppee loolu sans sax nga xool ne. diine <laughs> wala li wala. léegi pa pa yi bëlot nag ci weeru koor mooy première première euh, li ñuy wax fekkente ne jeux yi la jeux yi bu fekkente ne jouer pour jouer rek la yaakaar na nit nit ki bu jouer 364 ju 11 euh, euh, mois mois bi daal war na mën a jéem a éviter. yu mel noonu bu fekkente ne mën na mën mën na nekk occupé wu ci loo xam ne daal. dafay dafay utile. et mm. agréable waaye. Euh, du tax ñu wax ne mm, jeux yooyu dafay yàq koor. mën na ko wàññi ndax wala perdre le temps boo xam ne da nga ko waroon defee ci leneen. parce que jeux parce que jeux yi en tant que tel. bu fekkente ne ci divertissement nii rek euh, dara nekku ci ah. léegi paa yi ko xam ba pare di ko def nag yooyu joué loolu dafay aram. Hmm. ko xam ba pare di ko def c'est-à-dire paa yi toog ci grand place yi ci weeru koor gi bu ñu julee takkusaan ba pare di ray temps di dem. wala voilà paa yi yëpp quand wax nañu paa yi ñii wax nañu ñii wax nañu jeunes ñii wax nañu jigéen ñi waaye xam nga paa bu jàppee benn xal xal xal ba daf koy lakk. Uh-huh. jeune bu jàppee xal xal ma def koy lakk. Mhm. xal bu xam nga xal bi xameewul kii ak kër yi. kon euh, il faut ñu ñoom ñu ñëpp xoolaat rek euh, li nga xam ne dafay ànd ak utile ak agréable. surtout euh, problème mu temps. d'accord déjà oustaz gis nañu ni que bi ñuy dugg ci weeru koor gi ñu bari dañ doon dem ci ay soirée ñu ne ko dañuy tëj. saison bi. Mm-hmm. léegi gis nañu également que jour korité ñu bari dañuy dañu naan que dañuy euh, tëj euh, tëji saison bi tëj weeru koor bi <laughs> est-ce que loolu du du yàq koor li nga woor weer bi yëpp nga dem ci mm. guddi korité boobu noonu nga dem ci soirée yi nga ne da ngay tëj saison bi. voilà Sénégal li tax mu neex mooy facette bu nekk da nga koy <laughs> <laughs> fekk mu sax. maanaam euh, da ngay naan eh ñu ngi seen tudde yooyu kon kay. ñu ne weeri feeñ na la ah kon feeñ na kay. ñu programme woon yëpp daal nañ ko bàyyi bu ñu demee ba ñu noot weeru feeñ maanaam jeex na ñu ne ah voilà kon nañu nañu defaat lii nañu defaat lii te euh, warul demee noonu maanaam euh, liñ la xam nga koor mën nga jàpp ne période la sur le plan euh, temporel bu fekkente ne moo bi mën naa ko wax mooy nañu seet ci année bi fan la ñu fixé koor ñu ngi fixé koor avant pèlerinage di ñëw parce que da ngay naan Ramadan Shawwal Dul Qida Dul Hijja quatre mois avant Ramadan. avant pèlerinage. te pèlerinage benn rencontre internationale la boo xam ni comportement bu fa amulee bu baax bëgg yéeneente lu baax bu fa amulee du sotti. Mm-hmm. mu mel ni koor kon stage la pour boo ci jaaree nga mën a apte pour mën a dem ci rencontre internationale boobu ci pèlerinage bi. Mm-hmm. loolu mooy sur le plan international. bu dee bu dee sur le plan interne xam nga ëpp xaalis ci réew mi xamuma kan la nag. Mm-hmm. ni nga xiifee nii ci heure bii moom noonu la xiifee. Mhm. am na ay milliards de waaye mu ngay xiif. Mhm. <laughs> yow xaaral ma xool ñaata nekk ci poche soixante <laughs> waaye terewul ñëpp ñëppay xiifandoo. Mhm. loolu ban leçon lañ ci war a mën a téye mooy bu ñu demee ba xiif jeex maanaam ñu ne ñëpp mën nañu lekk bu nit ñëwee ci yow ni aw ma lekk nga mën a comprendre. exactement lan la bëgg wax kon aspect yooyu moom moom ci ci ci koor bi kon. ñu ne koor gi ñëw na rek ah ñu defee nii koor gi jeex na nañu defee ni le moo warul euh, warul demee noonu xëy na nag nit doomu aadama nga mënul nga mënul orienté ba cent pour cent lépp a mët waaye li ñu gënaloon <laughs> li ñu gënaloon mooy comme li ñu mel nii ci koor gi jàkk yi fees bay tuuru mhm. li ñu gënaloon mooy jàkk yi continué noonu di fees bay tuuru moo tax comme ma ko waxee keroog benn waay ne na nga nekk jaamukatu yàlla bul nekk jaamukatu koor mhm. parce que boo nekkee jaamukatu koor bu koor jeexee rek nga leen bagage waaye boo nekkee jaamukatu yàlla temps bu nekk euh, euh, da nga ko jàmm. voilà sama sama laaj bu mujj bi nit yi dañu gaaw ci boo defee dara rek ñu ne la subhanallah yow demal naa ni ndox. Mhm. également ma gis ni li Fatouche laajte yëpp yàqul koor mais daf koy wàññi. Mhm. lan la ñu mën a jàpp loo xam ne boo ko defee ci journée koor gi mën nga sa koor yàqu na définitivement. voilà très bien loolu itam jar na jar na préciser am na luñ ñu ci cof sànq mais dañ koy détaillé pour wax. Mhm. pour wax ne waaw léeg yow kay wari la wari nga yow kay demal ko wari waaw ay waxin la nag ci ne li nga def nii dëppoo ak koor gi rek waaw moo tax temps yi nag dama gis xulu xuloo yi encore sakkan lool ci ci biir oto yi xaw ma exactement naka la dem léeg gis ñaari xuloo sax ci ci benn oto yoo xam ne bokkul nag kee di xuloo kee di xuloo yooyu yëpp xam naa psychologue psychologue yi mën nañ ci wax dara léegi nag lan mooy yàq koor exactement li yàq koor daal mooy lekk boo lekkee sa koor yàqu na boo naanee sa koor yàqu na boo séyee sa koor yàqu na boo jonjo ak sa jabar ba ndox génn même bu fekkente ne du ndoxu séy bi sa koor yàqu na yii mooy yàq koor re euh, carrément nga xam ne lii bu ci bu amee rek koor gi dafay dal di dafay dafay dal di yàqu léegi nag dafay dugg ci biir loolu am matière boo xam ne dafa duggee ci sa bët mu dem a dem dem dem dem dem ba bu fekkente ne liquide la dañuy considéré comme lan la. Mhm. ba mu àgg ci sa mbaax boobu yàqal si corps encore. Mhm. wala benn matière boo xam ne dafa composé wu nekk matière bu rogaat rogaat ba àgg ci sa mbaax. piqûre piqûre docteur docteur bi mooy wax docteur bi moo ñu mën a wax ne boo piqûroo est-ce que. dafay àgg ci mbàq mi mhm. wala am na genre yoo xam ne boo ko defee noonu la wala am na place yoo xam ne boo ko piqûree noonu la mais bu fekkente ne ci sa yaram la ñu ne dugal yi rek du ko tax a yàq du yàq koor bi mhm. fekkente ne ci sa yaram ci boppam la dugg mais dugg àggul ci mbàq mi du ko yàq kon bu ñu waxee lekk ak naan yooyu daf ciy duggaale lu duggee ci bakkan lu duggee ci euh, euh, bët lu duggee ci nopp ba àgg ci mbàq mi mhm. dafay dafay yàq kon yii mooy yi nga xam ne mooy yàq koor wax nag ci ay yeneen yoo xam ne euh, jëw ak comme ni ko jigéen ñi bëggee euh, <laughs> yooyu yooyu dafay wàññi koor. ba mu wàññeeku loolu nag. d'accord waaw man fi ma doon jeexalee rek. Mhm. mooy. Mhm. tey mu daal jël congé. bu jëlee congé mooy day tudd ba 2 mu yeewu julli. Mhm. tëddaat ba 5 jot mu yeewu julli ba timis jot mu yeewu ndogu. est-ce que loolu ànd naa koor est-ce que tey jii woor war na tax nit ki di tëdd wala est-ce que yool bi koor yool bi am ci koor koor est-ce que dina ko jot. exactement kooku boo ko boo ko jotee ci téléphone walla nga gis ko ne ko xare badar mooy xare bi gën a difficile daanaka ci l'islam mhm, mhm. xare boobu ci koor la woon. Mhm, ci weeru koor la woon xeex xam nga euh, il faut d'abord nga xam lieu bi ñu ko doon defee muy euh, ca Makka foofu. ak tàngoor wi. Mhm. ak tàngoor wi ak ñàkk moyen yeeg mel noonu nekk ci fas yi di daw boobu ci koor la woon xare Badar le 17 Ramadan la nekkoon. Mhm. léegi nag loolu comme que ci koor la woon te am na saxaaba yu wooroon am na ñoo xam ne wooruñu woon nag. Mhm. am na parce que am nañ ci droit euh, am na ñoo xam ne wooruñu woon. mais am na ñoo xam ne dañu wooroon. comme que ñooñu ñoo mën a def loolu boole kook koor yow mi nga xam ne léegi am na lu tudd am am na lu tudd ventilateur am na lu ah. tudd sax place boo xam ne danga fee wala yooyu kon waroo def koor mu nekk korwe boo xam ne daal man war nelaw rek bu guddee nag ma door a jóg am na solo oustaz ma lay jaajëfal bu baax malheureusement waxtu bi moo ñu koy xëcc. dëgg la leer na leer na taw suñu bopp yi. waaw waxtu bi moom li mu def baaxul waaye xam naa <laughs> dinañ ko dabaatal ci waxtu bi. incha allah da ngay ñëwaat incha allah incha allah incha allah jaajëf bu baax baale nga tàggatoo ak téléspectateurs yi. jërëjëf ñuy euh, sant di euh, gërëm euh, mboolem équipe Petit-Déj bi ah, ndax comme ni ma ko waxee keroog rek utile ak agréable dafa dafa am solo. xam nga Pape Malick Sy. Mhm. daf ci mos a wax ci Petit-Déj bi seen émission bi boo xam loo xam ne. waxu ko ci benn émission bu dul boobu ne waruñu ko tuddee petit déj mais grand déj lañ ko war a tuddee <laughs> ndax euh, utile ak agréable bi muy àndal te heureusement que seen petit déj bi du yàq koor xam nga ndékki da yàq koor waaye seen petit déj bi du yàq <laughs> koor ndax euh, ndax dafay dundal <laughs> nit ki bu mu orienté ko ci yu bare yoo xam ne ci biir askan wi waroon na ci mën a faxastalu mu ñu alerté ko mu mu kii loolu am importance la ni ngeen ko koorale itam baax na woo leen oustaz waay oustaz boobu ba léegi ñëwal portugais na ñëw waay nangam ak nangam yooyu itam euh, baax na ci euh, nit ñi parce que euh, dina am kenn ku nekk fu sori foo xam yaa ngi koy orienté di ko indil njëriñ te fekk